Ablaye Sarr on a grandi ensemble sous la harnais dans ces affaires nawetaan ASC yi des na lool si nous voulons faire des ASC de développement il faut que ñu génn ci football bi kese dugg carrément dans le développement moi je suis un exemple je donne aux ASC chaque année pas moins de 400 000 francs de subvention chaque ASC de la commune mais en contrepartie qu'est-ce que je gagne sinon que le plaisir de les voir bien jouer. Mais la propreté, je ne les vois pas. Les actions de développement, je ne les vois pas. L'encadrement des jeunes pour que nous accédions aux sources de financement, je ne les vois pas. Et après, on dit que c'est l'État. Or, les ASC, moi je dis toujours à Amadoukan, la plus grande société civile du Sénégal, c'est l'ONCAV. Il y a des gens qui se prennent pour société civile, qui racontent des histoires tous les jours, et qui ne personne. Africa Jom ban ñaata moo fa nekk Alioune Tine où est son sec où est son adjoint où est son bureau y en a pas alors que chaque ASC dans son quartier est le leader de l'action dans le quartier mais pourquoi vous laissez la place à une société civile inexistante alors que vous vous êtes la vraie société civile loolu lu ko indi mooy ngeen jël seen responsabilité quand Amadou Kane m'a la subvention de l'État monsieur le ministre de la jeunesse la subvention de l'État pour plus de 8000 on dit que c'est 40 millions moi je suis un syndicaliste je suis membre du gouvernement mais 40 millions xeeb naa ko pour une subvention de de l'ONCAV 8000 mais c'est parce que vous devez jouer votre rôle de contre-pouvoir vous devez jouer votre rôle dans ce qui se fait dans ce dans ce qui se dans les quartiers mais moi je ne vois pas les ASC ASC dañuy ñëw ci man a ah, yi ñëw ah, dañuy dem phase nationale dañuy ne mais après je ne vois pas dans l'engagement engagement boobu ngeen war a taxaw organiser ko participer ci lépp lu ñuy def ci dëkk bi ngeen am poids bi ONCAV am ci réew mi ay yi am ko seen quartier yi ORCAV bi am ko au niveau du CRD le gouverneur il est là il peut faire un CRD tant que nawetaan du convoquer ORCAV ah parce que l'ORCAV n'occupe pas sa place dans la vie active l'ODCAV la même chose il suffit pas que mu def trois mois yi rek après c'est mort il faut que mu nekk 12 mois sur 12 d'encadrement des jeunes mais celui qui vous parle est un produit moi j'ai été ramasseur de balles président de commission d'organisation président de zone président de RECAV président d'ORCAV membre de l'ONCAV donc je connais màggetum gelo kenn du ko jàngal nu ñuy ngóobee nañu na ñuy waxante dëgg def diagnostic de nos ASC def diagnostic profond de nos ASC discuter de nos ASC du contenu de nos ASC le développement du football aujourd'hui Kaffrine je donne l'exemple de Kaffrine 4 ASC mais ñëpp dañoo gob bi mercenaire ñëw mais quelle est la politique que nous menons pour que les jeunes puissent trouver un cadre d'épanouissement de formation jusqu'au sommet mais ASC dafay def 4 ans après mu daanu beneen ASC xew fii amoon na temps Saloum moo fi xewoon léegi ñu ngi ci quatrième division je crois parce que parce que ay Gombe ay tout ça là ça disparaît parce que dañuy jëli ay mercenaires après c'est donc il faut que ngeen réfléchir ci loolu ASC gën a ñëwaat nekk au cœur de l'action mën a développer ce qu'ils ont à développer le reste vous aurez l'accompagnement de l'autorité je réitère le président Macky Sall nee na ma dana recevoir et il l'a dit en conseil des ministres devant tout le monde cette audience là avec le ministre de la jeunesse et le ministre des sports nous allons y travailler pour qu'elle soit rentable pour l'ensemble du en tout cas Amadou Kane maa ngi lay féliciter maa ngi lay remercier munatoo def lu raw li nga ma defal ren ci teranga ci taxawaay durant deux semaines après que Aliou Sow ait organisé na FESNAC ici c'est la deuxième grande activité nationale durant deux semaines où tous les fils des quatorze régions du Sénégal sont rassemblés à Kaffrine loolu nag aw ma seen pay ci loolu maa ngi féliciter ñëpp di sant ñëpp wasalaam